ci droit de tirage spéciaux yi ñu jox la trent huit milliards loolu pour man yabaate la loolu lan mooy suñu problème gis nga tubaab yi crise bi mu amee ba pare États-Unis bëgg relancer wu dañoo jël tiré deux mille milliards de dollars parce que seen xaalis la ñoo ko moom. oui xam nga battre monnaie li tax mu am solo xam nga boo gisee nit ñi dañoo war a am suñu xaalis loolu la tubaab bi ñu amee crise dañuy jël fabriquer xaalis. parce que nous sommes. par exemple États-Unis day mhm. banque des d'affaires et investisseurs yi ñu jox des mhm. créer des emplois, emploi relance bi affaire des créer des voilà mhm. créer des créer des créer alal Nous sommes amul si nous des droits spéciaux France pour que France tire pour jox xaalis boobu ñu jox dañ koy jënd xaalis boobu ñu jox dañ koy jënd donc réew tant que amoo possibilité defar sa bopp xaalisu bopp parce que xam nga lan moo tax defar sa xaalis am solo boo defaree sa xaalis da koy jël jox ko sa ay banque boo ko joxee say banque nga ni banque yi ñii laa bëgg nga joxal ma ko xaalis bi say banque waaw waaw d'accord ñii laa bëgg mais banque yi nekk sam réew nga jox leen ko ne leen xaalis bi ñii laa bëgg nga joxal ma leen ko ñi ko joxal noonu liggéey ci xaalis bi xaalis boobu jur xaalis jur ay liggéey jur koom-koom jur finance finance recherche finance loolu mooy développement donc tant génn ñu ñun ci CFA tant que amuñu suñu propre monnaie am souveraineté monétaire mën nañoo dem France tey demee ñu dem New York demee ñu dem fii tubaab yi duñ jox mukk lu ñu doy ndax bis bu ñu amee lu ñu doy dootuñu leen soxla te bu ñu leen soxlaa dootuñu mën a jaay xaalis parce que xaalis dañ koy jaay. tu comprends Macron nee na yoonam ci CFA mais yow sa yoon nekkul ci CFA lu tax nga CFA yóbbu ko ECO ba pare kon Banque de France moo koy gën a moo koy continuer de garantir donc bref il faut sénégalais xam solution bi ñu am c'est-à-dire tant que génnuñu ci CFA maanaam tant que amuñu souveraineté monétaire c'est-à-dire bu kenn bu kenn naxante parce que ñi yor xaalis bi ci àdduna bi ñi moom euro ak ñi moom dollar

tay dollar bi en fonction du pétrole dañ koy wañi diko yok yok yokk selon ko ngay wañi xaalis bi ak ni koy yokk ñi ngay jëflanteel da ngay gagné xaalis mm-hmm, mm-hmm. mais bu fekkee ne yow xaalis bi nga am fi mu nekk rek lay nek du yok du ko koo jëflanteel aussi da ngay perte xaalis donc bref daal buñ nañ ak sénégalais manam dal fek amuñu suñu coopéré dafa am ben sama ben bu bu nek ginaaw bu dekk ginaaw mbar sama xarit la dafa nan ma Cheikh yi man ko am ma ëpp solo ci aduna gis nga aduna fi ñu toll boo maîtriser lepp ci aduna fi ñu toll gis nga Sénégal gars yi ils ont l'armée am nañ police am nañ lépp tout ça mais tant que maîtriser wo xaalis amo souveraineté tay motax tax par exemple dëkk bu melni centre Afrique dañu dem ba nga xamni tay bi bi bi bi bi bi dara ñëwé dal ni français li ñu def ëpp na nangu aéroport ba nang dëkk ba xamatu bay lañ def fermer robinet yi carrément pour faire un fonctionnaire, il est obligé de ay dollars dégg baax dégg a un ma dollars ci avion Russie nous di fay en dollars parce que amul choix parce que dem Macron boo ko pour mu la non il faut que ubbi bi il faut ma il faut tel tu vois ce que je veux dire donc est-ce que tu imagines ça dans ton propre pays tu es obligé de nga dem dollars ak un ak i Chine di fa jëlee pour ñëw di fay devise étrangère ces fonctionnaires <laughs> donc bref daal ci gàttal daal euh, Macky Sall jàmbaar la lool vraiment DTS yi taxaw na ci taxawaay bu rafet kontaan ci lool mais loolu yëpp yooyu yëpp du solution tant que amuñu souveraineté monétaire suñu réew yi mënuñoo dem fenn parce que ku yor sa lañ nan kuy ëmb sa sankal ëmb sa sutura ki yor sa xaalis yor sa fluctuation monétaire say réserve de change di nekk ci ay bankam sa li gëna graw moy réserve de change parce que am naa moment amna dafa ak mu ne il faut ñu jël réserve de change yi nekk parce que les gens n'avaient pas compris yi nekk Banque de France pour séddale ko état mais il a raison

waaye lan moo tax Rwanda yor xaalisu boppam mel ni mu mel. non mais dama ah, lan moo tax Angola non dama lay jox yeneen exemple waa mais xoolal réew yi am seeni monnaie développé da maanaam réew Mauritanie dégg am monnaie mel ni mu mel. Ah, da xaaral ma jox la beneen exemple. lu tax lan moo tax Ghana yor dama koy mel ni mu mel. lu tax Ghana am monnaie yor naira ah, mel ni mu mel. lan moo tax. Afrique du Sud am xaalis yoru monnaie mel ni lan yor lan moo tax Maroc am monnaie maanaam boo xoolee ñi yor seeni monnaie ñi ci développé am na ñu mu jik am na ñu mu ci développé moo ëpp doole fuuf dañoo gëm seen bopp rek dégg ma ñi yor seen xaalis hmm. ñi ci d d'ailleurs réew yu développé Afrique yëpp dañoo yor seen xaalis hmm. déggul baax li ma la

Yérim nag yow da nga yeb. créé créé ah, billet bu bees non mais c'est la vérité. avant bi bi mu waajee combat xam nga xam nga Guinée amul woon. Condé xam nga Guinée amul woon. yaa xam nga yaa ngi tax Condé fu mu ne bu fi indi Condé waaye xam nga Guinée amul woon. Condé yaa ngi dégg xam nga Guinée amul woon vingt mille. Mm. billet amu ko de veyu campagne bi passé nañ ko tëgg la ñu dem ci banque centrale bi tëgg ay billet vingt mille pour waa ji mën a campagne xaalis. donc bu fekkee ni parce que xaalis aussi boo ko yoree boo moomee sa xaalis sa xaalis boo ko moomee sa réew il faut nga am rigueur mm. tu comprends il faut nga rigueur pour gérer flux khalis bi par rapport à sa économie mais li ma la bëgg wax daal mooy mal mm. Amna ñu yor sen khalis ñu développer. am khalis xaalis ñu développer mhm. wul waye amul kenn ku yorul khalis bopam ku développer lool moy affaire bi xoolal Afrique ñi nga xamni ne yow moomuñu seen xaalis demuñu fenn ñi fi ëpp doole muy Afrique du Sud muy Maroc muy Algérie. mais Côte d'Ivoire c'est un pays développé. Nigeria. Côte d'Ivoire demul fenn. Côte d'Ivoire dafa am caca. par exemple Côte d'Ivoire par exemple. force bi Côte d'Ivoire am. bu Côte d'Ivoire amoon chalice, di jouer ci monem par rapport au cours du cacao tay Côte d'Ivoire kenn du ko ëpp ah, doole ci ah, àdduna tay bu amone xaalisam meuna a meuna yok selon ni mi jaay cacao kenn duko ko ëpp doole. PDF Pape Djibril voilà. le sommet de Paris. le sommet de Paris.